Kaolack génn côté Kédougou te pour pourtant dañ ni tournée économique euh, Sénégal troit poumons économique la am gis nga mu ngi nii di feeñ ci Italie ci économique bi ci kaw moo nekk au nord ce qu'on appelle la euh, la la région du fleuve beneen poumon économique bi mooy euh, Casamance beneen poumon économique bi mooy zone des Niayes mais gis nga gis nga gis nga tournée bi dafa teggi zone yooyu yëpp dem ci beneen zone boo xam ni euh, boobu a échelle niveau niveau deux la donc maanaam ci itinéraire bi mu jël nii. Mm-hmm. boo xoolee tani yi gis nga dafay gis nii yoon bi maanaam dina neex mais am na fii benn benn benn point am na ci ñi muy gane ji ñoo xam ni ñooñu dañoo xaw a mer xaaral ma tani ko xool ñoom voilà ma xool moo leen merloo quoi su ma nee cacas ni pettaaw yi ngay hmm. gis ni gis nga ñii mi ngi ñëw di gane si ay nit ñoo xam ni dañ ko xaw a meral mooy Médina Gounass ah, waaw dañ ko xaw a meral que ñii li ñu ko xaw a meralee mooy euh, dañoo jàpp ni euh, ñoom daal waa ji daf leen xaw a yi ndaxte boo ko xoolee nii ñii gis nga gis nga pettaaw yi gis nga pettaaw yi loolu la wane nii gis nga nii gis nga ñii dañoo jàpp ni 2011 euh, bay waa ji bëgg réew mi daa ñëwoon ñoom def ak ñoom daaka ñu ñaanal ko waajal waajal ko préparer ko ba waaj a demee voilà ba waaj a demee ba am la muy am ba pare euh, daanaka dafa xaw dumooy daal di dem daal di far côté bële moo tax ñii xaw nañoo mer ci loolu mm. mais daanaka ñii yoon bi ñu tëral nii ak ñee yoon bi ñu tëral nii daanaka ñoom ñëpp ñoo bokk ci benn yoon fa muy jëmee mais daal kontaan nañu mais daal boo ko xoolee ba ci baax mm. tan yi bu bëri daal mm. euh, maanaam tournée bi daal maanaam euh, dina neex daal yoon bi daal dina neex ci maanaam waaw waaw waaw malgré nag waaw waaw waaw war na génne nag sarax sow mu ñuul ak nag mu weex waaw il faut mu génne ko ci sarax bi sinon kii bi quoi. monsieur le mi ngi rey waa seen TV l'officiel alors El Hadj laata ñuy commenté dañuy ànd ak Bakary Domingo Mané nee na nag li nga xam ne moom mooy tournée économique bi moom analyste politique bi dafa gis ne euh, président Macky Sall def lu dul natt boppam xool askan wi fu ñu toll ci moom ñu teewlu ko. gis nañ ne la plupart du temps ce sont des paysans du dimanche moom lay rencontré musul am pour man lu wërtu wër mooy politique président la république buy euh, tournée mel nii am na lu muy séntu ne euh, élection locale yi dafa bëgg a connecté woot vraiment avec sa population surtout avec disons son électorat lu ñu nemmee ko à l'occasion de ces tournées fu ñuy def accent bi surtout en matière de communication politique mooy foule bi ñuy xam ne dañ ko transporter l'un dans l'autre lu ñu si opération boobu c'est vraiment euh, la bataille de l'opinion et la bataille de l'opinion passe par la bataille médiatique euh, El mu mel ni kon président Macky day natt dooleem ci wàllu euh, popularité am lu mu ci doon <laughs> waaw en tout cas mu ngi mu ngi dimbali mu ngi dimbali ay àndandoom de parce que foog na ni xëy na fi muy jaar mun na fa mun na ko nooyal tuuti pour mu yomb ci eh, ñi koy représenté ci gox goxaat yi ci localité yi ci élection yi ñu dégmal. Mhm. mun ñu foog loolu. tukki économique la mun nañu ko njort mais saf na loolu politique. Euh, yéen diwaan la gën a ciblé pour dem fa. Euh, doon nañu doon nañu gën a dal suñu xel ñu koy wooyu tukki économique ci bu fekkante woon nii at yi koy jiitu woon ci ndajem conseil des ministres yi. li ñu fi digge woon ci wàllu réalisation def nañu ko mais tey ban ci dëkk yooyu moo yëg ni am na ak yokkute ci wàllu infrastructure ci wàllu sant ci wàllu sport ci wàllu éducation mu nekk ay réalisation bu gouvernement bi ñu mën koo joxañ sax ni lii ci wàllu économique la tegee mais boo seetee appellation économique économique bi sa à dire que te mhm. lépp doon discours boo xam ne wàllu politique la tey président dina dem foo xamante ni bii gerte ñor na fa ay nit jënd ko di ko jële foofu di ko yóbbu Touba ay douane dogal leen ci yoon wala ay policiers ni leen amu leen sañ-sañ boobu gerte ñor na fa amuñu ku ñu ko jaay gerte ñor na fa mhm. état jàppandal ay étranger ñu fay concurrencer nationaux yi njiit réew mi dina dem foo xamante ni bi tey euh, gerte ñor na fa ñu xolli ba noppi am seen buuse amuñu mhm. ay machines yu ñu ko segale génn ci ay diw dina fekk ñoo xam ni daañu daanañu bay coton wëttéen dina fekk ñoo xam ni mun nañu fa def ay unité de production yuy jël gerte gi xottu gerte yi ak wëttéen bi di def kooraay mhm. bi nga xam ni tey boo xoolee chiffre d'affaires camion yi jógee Burkina Faso di traversé Mali di ñëw Sénégal li ñuy jaay ci kooraay bi ñuy alimenté suñu ay jur fii ci Sénégal kenn xamul mu tal et on est mieux placé pour mën a am ay unité de production yuy defar alimentation yu gën yooyu et fii Sénégal li ñu gën a valoriser surtout ci aliment de bétail yi mooy industrie yi nga xam ne ñi ëpp ci ñu ko moom ay ay étranger lañu. moo mm-hmm. bëgguma sax di di stigmatiser quoi mais faaw ñu. xam faveur bi ñuy defal ñi fi dëkkul bu ñu ko defalee ñi fi dëkk. Mhm. ñu def lu gën li ñi fi dëkkul di def te gën a yomb ci ñi fi dëkk. ngir dund gën a jàppandi dinañ bàyyi xel ci yooyu bu ñuy tukkeeti ngir taxawal ay unité de production. bu ñu ko mhm. deful économie bi woote doo nga lay nekk mais Sénégal yi duñ ko yëkk. duñ ko yëkk. loolu leer na ñu àddu jëmale ci wàllu politique nag bi lay yoon ndax jëm ci ku jëkk politique gi nga xam ne seen namm teef wala xemmem teef li moo duñu booloo taxawal ab